point net euh, dellu si waat euh, xam ngeen ko bés bu waxtu bi jotee ñu daal di ñëw euh, ci 12 minutes chrono fukki minutes ak ñaar ngir ñu daal di wax ci actualité bi ak kenn tey ji nag ñu dalal Mamadou Lamine Biaye nekk coordonnateur départemental waaye tamit nekk délégué régional bu Grand Parti bu Malick Gakou foofee ca diwaan bu Ziguinchor ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay monsieur Senghor di la sant di la gërëm ci invitation bi donc de loin ñoo leen di suivre fi ñu et pour précision du Sikio Ziguinchor mais Sédhiou la donc euh, maa ngi Sédhiou nekk euh, coordonnateur départemental bu Malick Gakou foofu mm. mais nekk aussi délégué régional surtout dans le cadre du du donc euh, di leen gërëm di leen sant seen taxawaay ci liggéey bi et tout quoi. macha allah on commence justement ci parrainage boobu fan ngeen toll grand parti fan la toll ci parrainage bi ta Sédhiou. parrainage bi si Sédhiou déjà ñoo ngi koy boucler donc nous nous sommes fixés comme objectif de donner 5000 parrains suñu leader. actuellement nous sommes à 4000 donc euh, bientôt nañ ko boucler pare ko parce que dañ ko commencé ça fait presque un mois quelque balaa sax gars di lancer ouverture bi ñun nekkoon nañ sur le terrain nekk ci parrainage bi dans tout le territoire euh, vraiment de de la région. mais est-ce que justement 5000 euh, yi di ngeen ko matal gëm ngeen et puis au-delà de aussi il signaler une chose dégguñu leen de c'est vrai que gars ñu ngi def bruit partout un peu mais aussi nekkul ne Euh, blocage yu ñu leen def ci yenn gox yi bu euh, caravane bu Malick Gakou di di déplacé moom moo tax tekk tekkaaral bi ñu gis ko au niveau de Sédhiou. waaw xam nga booy saqat waroo yor donc dans un passé très récent 2019 gisoon nañ ni amoon nañ ay blocage sax déjà avec le cadre du parrainage donc suñu yeneen stratégie dañ ko dévoilé dañ koy def tapis dans l'ombre

comme en 2019 ñu bañ leen en tout cas ñu ne Malick Gakou moo talul parrain pour mën a jàll élection présidentielle. non c'est que même en 2019 amuñu woon problème parrain parce que dañoo demoon nous sommes le deuxième parti politique à part le pouvoir amoon 11 régions sur 14 le président Macky Sall. qu'est-ce qui s'était passé exactement. donc y euh, un problème déjà ci rang bi. Hmm. soo fàttali ko suñu leader demoon na xam ni pour ñu créer ko affaire doublon il fallait que nekk ci ginnaaw première position moom moo nekkoon ci rang bi numéro un ñu ñëw génne ko indi Mimi Touré. Mimi Touré boobu gis nga tey nu mu mujj ak gars moom fu ñu ko yóbbee à ay doublon hmm. mais ba mu amee les euh, onze régions ñëw indi lu mat ay quarante quatre mille parrain ñu ñëw indi koy doublon ne ko da nga am huit indiwaat plus de vingt mille parrain joxaat leen ko ne leen si huit mille huit cent yi mais jël leen yi ngeen xam ne den da ngeen foog ni baaxul ñu ne ko noonu yow sax tànnal mais conseil constitutionnel ñoom sax ñi fay liggéey ils ont fiché ça tout yaa ngi dégg gars yi di wax jurisprudence Malick Gakou donc xam nañ ni loolu injustice la mais quand euh, loolu c' était pour le pour le bloquer parce que moom bokk na ci candidat yi nga xam ne yóbbu nañ ko sax deuxième tour. Hmm. yóbbu nañ ko deuxième tour ne ko léegi yow da ngay dañ lay mayaat beneen chance moom ak Idrissa ak ñeneen ak ñeneen te pour man xel mënul nangu yeneen leaders yi cinq yi nga xam ne jàlloon nañ ñooñu ñu jàll Malick Gakou ñu bloqué ko donc c' était juste la politique il dérangeait ñu bëgg ko bloqué te loolu affaire de doublon même si ça continue à déranger mais nous on va on va on va apprendre aussi on a gagné en expérience xam nañ de jouer. et c'est quoi les stratégies exactement. non les stratégies je ne peux pas dévoiler ça sur la télé mais quand même on a des stratégies nga xam ne déjà benn li ma ci mën a wax mooy ñu dañoo teel a jóg sax balaa ñuy lancer parrainage bi loolu rek déjà. mais loolu faux départ la. de pas pas faux départ parce que déposé gu ñu conseil constitutionnel mais ñun on travaille sur le terrain. xam nañ li nga xam ne daal balaa gars yi naan date bii la lii ñun fekk na ñun pare nañ ci ah, parce que parce que yéen wóolu leen seen bopp boo leen woon seen bopp di xaar ba gars yi joxe le top départ ngeen soog a départ comme ñëpp wóolu nañ suñu bopp mais pouvoir bi lañ wóolul parce que pouvoir bi ay saay ma yàlla avec euh, le parrainage ce qui euh, peut-être ñu war a mën a am xel ñaar ci ñoom mooy le conseil constitutionnel bi nga xam

mu pour pourcentage bi 58 lay doon ñu am 58 donc loolu boo ko gisee da ngay sa xel day tey donc yeneen affaire yi dañ ci gën hmm. naan lii mooy am 5 candidats mooy am ñu am 5 pourcentage bi la am mu am donc dañuy xam ne c'est prémédité tout a été fabriqué. instant ñoo ngi dégg Makumba Diouf sax euh, ki nekkoon Israël naan y pas plus de huit candidats. loolu sax commencé na tey suñu xel. Hmm. fu mu fu mu jëlee information mais quand même ñoo ngi ko te xam naa ne vidéo yi moom même bu dee am na. am bopp bañ a bokk. du ci dina bokk ci ñi nga xam ne sax ñoom ñooy njëkk a valider seen affaire yi ñoom seen candidature. Hmm. parce que il est prêt sur les plans et ñun ñoo koy gunge sur les plans aussi pour mu mën a diriger réew bi. Sénégal alors ñun askanu Sénégal lan bu ñu bëggee jox Malick Gakou suñu réew lan ci lan la ñu mën a sukkandiku exactement maanaam yow mi nga xamante ne peut-être euh, tu fréquentes Malick Gakou jege nga Malick Gakou yow yaa ko représenté dans le mhm. na ni suñu économie on nous parle de taux de croissance bi nga xam ne pendant ce nit ñaa ngi dugg ci gaal yi di dem seen yoon mënuñu am taux de croissance bi nga xam ne FMI moo ñu ko proposé moo ñu ko décerné ba pare malgré ça les gens peinent à travail nit ñi di quitter fii des fonctionnaires di quitter di dugg Nicaragua di dem feneen. Hmm. donc dans le sud nous avons des des des euh, la nature est prospère là-bas. donc il y a de formation des transformations yi nga xam ne proposé na ko. Hmm. transformation en fruits nouveau-né. il a promis. Ah, mais loolu la fi am parce que jotagul gouverné gul mais Malick Gakou luy tax. mais est-ce que promesse bi doon promesse politique. non du nekk promesse politique parce que moom jot na fi nekk ministre. et on a vu ce qu'il a fait. bien sûr euh, il a tellement bien géré que ba mu gisee ni état bi ni muy doxalee sax du noonu il a démissionné. alors toujours ci présidentielle bi euh, certaines personnes pensent que mën nañu dàq élection yi est-ce que vous même si parfois yéen gis nañu tension bi yëngu. tension bi dina yëngu loolu moom élection présidentielle moo mel noonu. envergure mm. bi moo mel noonu. Mm. mais loolu ça ça n'entache en rien euh, la tenue vraiment à date issue des des élections gisuñu loolu Amadou Ba mi ngi campagne yaa ngi koy gis donc il sait que. non tournée économique. mooy campagne déguisée la mon frère ñun ñëpp xam nañu tournée la pendant temps là sama leader ñu ngi ko doon bloqué dans le mm. ñu ngi buntu xataal Khalifa Sall donc mm. xam nañ ni élection yi duñ ko pousse c'est au mois de février on est prêt ñoom sax même bu dee dinañ peut-être jéem a ndëre nañu mais xam nañ ni ñoom euh, ils vont perdre et ils vont se préparer en tout cas en conséquence et à les bagages et à alors yow yaa wax Khalifa Sall Khalifa Sall Ousmane Sonko ak Malick Gakou on les connaît. Mm. ak jegewante bi ñu jegewante justement ci coalition Yewwi Askan Wi. certaines que mm. Yewwi n'existe plus déjà la dernière fois ñoom ay dëmboo ñi woon foofu ñoom Abib Sy Malick Gakou déjà ci marché bii nii amoon fii semaine bii nii rek mi woon foofu. bien sûr loolu c'est c'est Yewwi Wi y a aucune session. mais est-ce que Malick Gakou existe son Sonko. pourquoi pas pourquoi pas l'existence Sonko maa leen ko ba muy commencé politique ba muy créé grand parti Sonko créé mais d'accord nga ne Sonko li mu am ci politique instant yi Malick Gakou amu ko nga xam ne tamit mënuñu ko ko teg Sonko a été à l'élection présidentielle 2019 troisième Malick Gakou demul woon jarul sax parrainage Malick Gakou était avec Idrissa Seck Idrissa Seck était deuxième Malick Gakou était coordinateur national de la coalition Idy 2019 te 2019 boobu après Macky Sall Idrissa moo ci topp mais instant bi bu Malick Gakou demee Sonko dem ak keneen ak keneen dem peut-être ci ngay am baromètre bi nga xam ne mun nga leen euh, def benn comparaison mais quand Malick Gakou a soutenu Idriss Seck Idriss Seck était deuxième aux élections présidentielles et le PASTEF était troisième le Macky Sall avec son pouvoir avec tous ces appareils là était premier. d'accord euh, Ziguinchor euh, comme ni nga ko waxee bien entendu dans le sud du pays li dal Ousmane Sonko. Euh, certainement waa Ziguinchor aussi ñu ngi ñu ngi compatir y compris waa Sédhiou encore une fois est-ce que vous pensez que c'est tout à fait normal que ñu ne Ousmane Sonko du bokk ci joŋante njiitu réew je veux dire par rapport à la radiation de Sonko sur les listes électorales non loolu ñu ngi koy naqarlu parce que loolu gis nañ ni jaay doole la le problème du pouvoir c'est que Sonko il dérange et ils savent que Sonko bu. il dérange qui le pouvoir ou l'opposition il dérange le pouvoir. et l'opposition en même temps. non pas l'opposition parce que nous nous avons le même objectif Sonko bu bokkee élection bu jàllee deuxième tour l'opposition dañuy dañuy ranger ginnaawam Malick Gakou bu jàllee deuxième tour opposition bi dañuy ranger ginnaawam soo la loolu dafa bokk sax si charte Yewwi Askan Wi donc nous entre nous y a pas de problème le seul bémol li gars yi war a mën a comprendre mooy élection présidentielle même au sein de l'opposition ku nekk da ngay dem loolu ça a été déjà réglé. Hmm. Khalifa Sall mi ngi sur le terrain Gakou mi ngi sur le terrain Bougane Gueye mi ngi sur le terrain. Hmm. élection présidentielle moo noonu du élection législative ku nekk da ngay dem wut maintenant le meilleur ki nga xam ne moo nekk deuxième ou bien moo nekk premier on on le souhaite bien après mais opposition bi retrouvaille lay doon booy dégg sax benn bokk yaakaar du APR. Hmm. donc c' est c' est de partis nga xam ne ñoom ñoom ñoo a un seul adversaire et le régime en place mooy. et on tout pour que ñoom ñu génn fi. d' ñu génn ci politique wax ci situation réew mi bien sûr euh, comme ni nga ko waxee sànq wàllum économie mais va parler surtout de l' du Sénégal euh, bien entendu ibite école bi gis nañu ni mu mouvementé euh, grève nga xamante annoncé nañu ko. et au niveau de l'université Cheikh Anta Dakar. dans les universités t on du Sénégal. cette situation comment est ce que vous le comprenez est ce que jot a def justement pour peut être situation yi a jàng dañu mais déjà les étudiants ñoom suñu jàngo déjà chaque année seen euh, année scolaire c'est perturbé c'est perturbé avec fermeture yi ak yeneen euh, front yi nga xam ne dafay am bu demee nag ba am répercussion si suñu rakk yi ñoom seen rakk yi yi nga xam ne ñu ngi lycée ci collège di leen di déloger donc euh, le premier responsable c'est le gouvernement bi nga xam ne dafa war a ubbi école yi ñu bañ a espace espace espace les étudiants ah, war nañu am jàpp nga ne am na politique bu ci lalu am na politique sur tous les fronts donc espace espace boobu dafa war a nekk espace bu apolitique maintenant les étudiants am nañ seen appartenance am nañ droit bokk ci parti politique yi mais sphère bi rek bu ko politiser rek souvent day am problème te appareil bi ñi am moyen c'est le pouvoir da ngay sax si un leader de l'opposition doit aller là-bas da ngay gis pouvoir ñu am ay moyens nga xam à ah, Sédhiou y' a beaucoup d' abri parce que y' a des communes rurales qui sont là-bas instant bi ouverture bi pour nga am ubbi tey jàng tey loolu slogan bu kër amul instant bi nit ñaa ngi defar seen abri am na ñi ñu ngi si tool yi pareeguñu buñ jàngalee tamit ba mai taw bi commencé ñu tëj avec toute cette insécurité bi nga xam ne mi ngi ci abri provisoire yi loolu lañ war a euh, éponger projet nga xam ne indi nañ ko fa ay paquet ak yeneen kii ñu jool xool suñu xale yi leen di outiller en moyen didactique ñu informatiser école bi enseignant ñu mettre leen dans pour enseignement mu jëm kanam. immigration irrégulière ndaw yi ñu ngi bàyyi Sénégal dem wutali euh, Barça wala Barsax. Mhm. Euh, comme on le dit euh, la l'Atlantique est en train d'engloutir les les les jeunes sénégalais et ce sont eux l'avenir de ce pays. est-ce que désespoir bi am ci ci ci ndaw yi. yow justement ci ndaw yi nga bokk justement est-ce que parfois na ñu toog peut-être xool le début. Mhm. bi ñu mën a teg un début de solution pour mhm. peut-être mën a parer. li nga xam moom mooy l'immigration bi. waaw mais lu ñu war a def c'est déjà éduqué. non mais est-ce que amul leneen lu ci dalul lu échec pouvoir public. échec pouvoir parce que kuy dem parce que fii gis santuru fi boppam mais nit ñi dañuy toog. mais est-ce que ndaw yi tamit jéem nañu lu ñu fu mën a sentir seen bopp ndaw yi demal yëmbal wala nga dem Kër Massar. da nga hmm. yeew suba teel nga dem fa à 10 heures gis gaa yor seen peel di wut journée. Hmm. dem bëgg liggéey am 2000 francs francs. ngi jaay café ngi jël ay affaire di ko jënd fëgg vente en ligne bi jeunes yaa ngi koy def hmm. xam nga ci dara hmm. yow amoo xaalis sax mais da gis benn article nga capturé ko def ko statut ñëw buy jar 7000 yow nga jaay ko 8000 pour am sa benn 1000 francs donc les jeunes ils sont ambitieux nit ñaa jàng am seen maîtrise le problème c'est que a un chômage qui est criard qui est là qu'il faut qu'il faut faut combler une corruption ji nga xam ne nit ñi ñaa ngi koy gis mu leen di métti benn élite bi nga mooy mooy bonifié wu di am ay milliards pendant ce wala am qualification am mais mënul am liggéey la pression sociale est là les parents sont là boo ndekkee doo añ parfois sax yaay nga gis ko mu feebar mënoo ko faj mais da ngay naan man dama war a dem wuti ni samay morom surtout boo gisee sa benn xarit bi nga xam ne jël na gaal mu dem oto tabax R plus mais da ngay naan man man donc ça ne va pas parfois sax ñooy dem lebi xaalis maire yi dem jël natt ne la am demal nga dem sa yoon. Hmm. léegi-léegi seen locaux yi maa ngi xool ay jeunes ay xale jigéen ñi naan ñun dañoo bëgg a dem parce que sentir ñu seen bopp fii si bar ñu fii nii donc loolu xanaa état bi bu amoon ay entreprise yi nga xam ne da ko fiy teg di jël nit ñi di leen fay minimum cent cinquante mille par mois ak condition yi nga xam ne Sénégal nu mu métti nu mu nekk nii mais ils pas braver la mer naan dañuy dem suicide quand même parce que ñun loolu dañ koy ñaawlu pour finir pour finir donc ñun dañuy ñaan état bi mu revenir vraiment à de meilleurs sentiments jéem a caser suñu parce que à ce rythme kenn du fi desaat personne ne dem la fuite des cerveaux. bien sûr combien d'intellectuels on a ñu ngi ci université yi européennes yi du ñu sax bëgg a ñibbisiwaat donc loolu état bi moo war a xool naka lay gérer suñ surtout bu amee ressources naturelles yi nga xam ne ñu ngi hmm. a équitable mu bañ a am ay ministres yi nga xam ne dañuy jël suñu 4000 milliards yi ñeneen ñi ngay dégg ñu naan am nañ 23 milliards yu jël. ñi nga xam ne tabax nañ lii en l'espace de deux ans trois ans seen salaire permettre leen ko mais ñu jël nit ñi jàngal ba pare inculquer ñuy vivre vraiment dans de très bonnes conditions parce que Sénégal réewu teranga la dëkk bu neex la. macha allah am nañ mbégte bu baax a baax dalal ko moom euh, Mamadou euh, Lamine Biaye bien sûr euh, mu nekkoon je rappelle coordonnateur départemental bu ak grand parti foofee ca Sédhiou mu nekk nag taxawaay bu am solo boo xamante ne mu ngi ko fay daal def ci parrainage bi dégg ngeen ko lu mu wax mbokk yi ëllëg lay doon incha allah daañu dalal ki nga xam ne moom mooy. Euh, responsable wala coordonnateur national bu gëm sa bopp incha allah ëllëg day doon euh, ci seen émission 12 minutes chrono suba ak jàmm.